mbokk yi mbokk yi dellusiwaat nan mbokk yi président de la république président de la république président xoolaatal sa bopp xoolaatal sa bopp mbokk yi képp koo xam ni sénégalais nga wala sax doo sénégalais waaye bokk nga ci nit ñi wala réew yu wër senegal walla mën naa ni àddina bépp xam ngeen ni ñaawlu nañ li xew jamono yi te dara warul ko loolu président de la république bu senegal bu ñu ko waxee rek am na fu ñu ko teg président sunu borom day di laa dénk te yàlla lu mu dénk nit ëllëg de la ko laaj président dañu lay laaya biir ndax sañ nañ ko ndax benn ay doomi réew mi lan ay citoyen lan ci réew mi lan juddoo fi leen màgge fi leen jànge fi lañu liggéeye te bu ñu faatoo fi leen fas yéene ñu denc na fi kon réew mi rek lañ am te yonent bi sallallahu alayhi wa na ni bëgg sa réew bëgg sa dëkkuwaay bokk na ci ngëm yàlla te ngëm yàlla dafa foor président geestu sa ginnaaw at yële paase président booba sa vidéo yi ma fi lu ne wax nga ko ci kaw maître Abdoulaye Wade lu ne wax nga ko ci nguur gi fi nekkoon bay ñaan armée nationale ñu jóg jàppale askan wi dal ci kaw maître Abdoulaye Wade mais loola xanaa doo doo xalaat président yow est-ce xam nga ni lii xew ci réew mi nii lii xew ci réew mi ëllëg looy lay sénégalais yi lan ngay lay sénégalais yi président ëllëg loo leen di lay laa xamut daa xalaatal waqifuuhum innahum mas'uluun ëllëg bu yàlla taxawalee sénégalais yëpp jël la taxawal la teg la suñ kanam président sénégalais yi war a taxaw nga taxaw sénégalais yëpp wër la sunu borom ni la président noo demee ak ñii bis boobu xalaat ko. te dina ñëw de te yàggatul nag dana ñëw te yàggatul président xalaatal loolu su boobaa ñun sénégalais yi bu ñu taxawee ci sa ginnaaw sunu borom di laaj ni yow kë yaa jiite woon ñii noo leen jiite woon ak nu mu demoon përsiraa su boobaa su boobaa président danga xam ne jub rek am njëriñ da xam ne dëgg rek a wér da xam ne lu waaye nekkanti te du dëgg bis booba lay feeñ. yawma tubla sarair la yàlla wax bis boobu la ñuy dindi mboolem yi nëbbu woon ci nit ñi mboolem yi ngeen doon nëbb ak di ko dëxañ ak di ko def ci seen biir di ko nëbb askan yi ba yii yëpp xew su boobaa sunu borom dee ni ko nit ñëpp ñu gis ko li ci nekkoon dëgg yàlla dee ko wane li ci nekkoon ay nar nekk ci lu dul dëgg yàlla dee ko wane président areeraatal ci lii président gis na ni da ngaa dëgër bopp te njiitu réew du dëgër bopp wala booy dëgër bopp da ngay ko jar mais lii de koo jërut ca dëgër nga bopp président mbir mii nga xam ne tey ñaari nit faat nañ ci jàpp ñetti nit waaye ñaar yooyu ñu ëllëg da ngaa yaakaar ne sunu borom du la taxawal taxawal ñu leen laaj leen nan la def ba ñii faatu ak ku jiite woon Sénégal nga taxaw ñoom ñu taxaw ñu dekkal leen ñu taxaw yéen nga taxaw président de république réew mi day war nga leen de danga nga ñoo wor da nga ñoo wor da nga ñoo wor wor nga ñu ndax yaakaaruñ ci lii billaahi wallaahi taalaahi réew mi ñëpp a seere wan ni ci ñi gën a yaru nga bokk ñëpp a seere wan ni ci ñi gën a baax nga bokk loolu dong tax ñu dénk la réew mi am ci yow yaakaar jële fi Maître Wade loolu lépp nag tey dem nga ba jël ay nit teg leen ci sa kanam ñu dina dugguloo ci ay njeexum yoo xam ne njeexum yooyu boo ko muyul mooy taar réew mi te réew mi tàkk na ba noppi ñun tey fii ñu nekk tey kenn mënta dem kenn mënta dikk soxla yëpp dafa mujj kenn mënu ci dara ndax doo dem doo dikk oto dawut président loolu nga yaakaar ne ëllëg doo ko layoo ak ñun te ñu aman ci yaakaar aman ci yow kóolute nga topp ñi nga xam ne ñoo lay nëtaxal ñoo lay sërxal dina dugal ci yoo xam ne doo ko xam te ñii nga xam ne gëmuñu dara lu CFA alali àdduna nguuru àdduna nga topp leen ñu surxal la waaye nag kuy gasal sa noon am pax moyul mu xóot ndax mu xóotee bu muy tuul yow yaa sërxalu te yow sërxalu ko ci pax mi ba pare yow président inna lesiina yuhibbuuna an tasihal faahisa fahisatu fi lesiina amanu la ci yàlla te xam nga ko ñi nga xam ne dañuy dox ngir ñaaw téef di tasaaroo ci nit ñi ndax bëgguñu lu baax du dox ci lu baax duñ wax ci lu baax alquran wax na ni ñooñee sunu boroom dël na leen lahum asaabun alim fi dunya wal axira yàlla nee na ñooñee ëllëg dinaa leen ronkas ca sawaroo gën a tàng nee na bala ma koo def nag fii ci àddina laa leen di teel a wane ni ma leen di bëggale mooy yow yàlla dina rëcc sa nguur bu gaaw te doo xam lu ko rëcc président lii ngay def fexe ba askan bi jël seeni xol tàmpe ko ak sa xol bëgg la sopp la loolu moo gën mais defoo loolu président président lii nga teg sa tànk teggi ko réew mi am jàmm président teggil lii teg sa tànk réew mi am jàmm président nguuru àdduna jërul lii président ñi dee ci lii ëllëg bu ëllëgee looy lay suñ boroom ngir laan xëccu àdduna képp moo tax ñett nit ñeent wala ñaari nit dee ci lii bu ëllëgee sunu borom taxawal la wala nas allanna lasina ursila ilayhim waaye nag wala nas allana mursalin yàlla ne dinaa laaj ñi ma yebaloon ci yéen waaye yéen nit ñi itam ëllëg dinaa leen laaj yéen itam nu ngeen doxale woon man raa minkum munkaran fal yuqayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi saaliku adaafu l président force ñu wax la leen li nga nekk nii réew mi ànduñ ci tey ànduñ ci suba te du dégg ku la ne yaa ngi ci dégg da lay jay ku la wax rek dalay lay jay dellul ginnaaw ci li nga nekk président askan wi soxla na liberté askan wi soxla na jàmm Sénégal benn bopp la Sénégal ñoo bokk ay maam ñoo bokk waaso ñoo bokk lépp kilifa yi diine yi fi nekk benn la réew mi benn la même ba ci jàngu bi sax ak julli yi benn lan musuñu am teqalikoo te lépp dañ ko rafetal yow nga bëgg a ñëw def Sénégal tëj ko rajaxa ko ci diggante yu ñàkk solo yu amul solo yi nga xam ne amul fenn fu ngeen ko mën a wéer président de la république askan wi nee nan lii nga nekk du dëgg arrêté dellu ci ginnaaw dellu ci ginnaaw dellu ci ginnaaw dellu ginnaaw ci li nga nekk libéréel Ousmane Sonko mu dellu këram askan wi nekk ci jàmm kilifa yi diine yaa ngi lay ñaan kilifa yëpp la ñaan mais président ñëpp nee na da ngaa dëgër bopp dëgër bopp nag baaxul ci njiitu réew président xoolal Aboubacar Sadiq keroog bi ñu bi ñu ko jiitalee te dafa bañ ni ma jiital ñu ne ko Rasulullah sallallahu alayhi joxañ na la ay yoon yoon kon yaa war a nekk suñu jiit xam nga lu ma wax ayyuhan naas inni la waytu inni la waytu bikum wa lastu bi xayrikum ee eh yéen nit ñi ne leen leer ni maa ngi nii maa leen jiite man ngeen def may président waaye nag gënuma leen allahu akbar su ngeen ma gisee ma jaar fu jub topp leen ma ci li ma nekk su ngeen ma gisee ma jaar ci loolu dëgg rikk waaye man abubakar sadiq bu leen ma topp na ngeen ma jubbanti gindi ma yow nag da ngaa toll ci ñu war laa jubbanti gindi la ne lii nga jaar président du dëgg areeral ci lii nga nekk jox nañ la cër jox na la respect ndax bopp réewu Sénégal sa loxo la ko yàlla teg loolu dañ la koy nangul mais nag lii ëllëg yàlla dee la ko laaj may daane nag ci sunu sistisu réew sistisu réew bi suñu réew dañ daan wax ne sistisu Sénégal lay dama ko wóolu mais ñëpp nag ñu ngi bëgg a tey xel ci yéen sistis du ànd ak état sistis du ànd ak pouvoir sistis day ànd ak dëgg ànd ak doomu aadama waaye ànd ak humanité waaye ànd ak nag askan wi ci dëgg nga xam ni doo fi nekkal kenn du benn meetar du benn député du benn président du benn ministre waaye dëgg nga fi nekkal ak askan wi kon yéen justice bi na ngeen xam ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal laa leen di wax noonu na àtte da ñett la ñaar ñëpp sawara lañ jëm kenn kay dem àjjana te wa man lam yaxkum bi ma am allah fa ko humul kaafiruun fa ulaayika humul xaasiruun waaye fa ulaayika humul zaalimuun képp ku attewul ci yàlla dëggal ni lii mooy atte bu maandu narkat nga weddi nga dëgg gi te nga sa tànk ba pare ab tooñkat nga sis sis xam leen ni ñun ñii ñépp ëllëg dañuy wuyu suñu borom te kenn ci yéen du fi dund lim dundaat lim dundal du ko fi dundaat kon ragal leen yàlla ragal leen yàlla ragal leen yàlla sunu borom waxam na ni yow Muhammad da ngay dangay te ñii la topp ñëpp dañuy faatu innaka mayitun suma innahum mayitun te itam yowmal qiyaamatu asuun ëllëg yàlla dee leen taxawal kenn ku ne ci yéen réglé la ni noo deme won ak mbir ma xewoon ci diggante usmaan Sonko ak Adji Sarr noo ko doxale woon foo ci tege sa tànk ndax li nga waxoon nit ñi ni Ousmane Sonko ko def moo ko def ndax li nga doon def dëgg la mbokk yi sunu borom nee na wa kulluhum aatihi yowma alqiyaamati farda kenn ku ci nekk ëllëg danaa la taxawal laaj la men yow dong nday du fa ne baay du fa ne avocat du fa ne député fa ne magistrat du fa ne kenn du fa nekk sunu borom dong ak yow dong kutt rek képp yàlla ni la noo doxale woon sa àddina ngay laaj lépp loo nar a laaj te du dëgg say cër ñoo koy tontu al yawma naxtimu ala afwaahim wa tukallimuna aydihim wa tasfadu arjuluhum bima kaanu yaksibuna alxuraan la tër yeey tontu tër yeey wax kon dëgg rek am solo réew mi nañ ci woote dal roota ci jàmm réew mi tàkk na réew mi mitti na kenn xamatul looy def kenn amatul dalu xel kenn amatu ko kenn rawat na diwaan Ndakaaru kon président Macky Sall boo bëggee jàmm ci réew mi libéral Macky Ousmane Sonko libéré ko libéré ko réew mi am jàmm nga nekkaat sa activité ñu nekk suñu activité bu élection jotee ku yàlla dogal ni kookaa war a jël réew mi kooka dee ko jël wasalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu jërë ngeen jëf